RTS commencé wul enregistré candidat yi. Hmm, dara wóoragul. dara wóoragul léegi nag bu ñu commencé enregistré candidat yi ba ñu ubbi campagne ba nit ñi commencé campagne man ma xam ni ci élection li ñu jëm. d' mais tey bu ñu demoon ba deuxième tour am dafay jéggi au delà du 2 avril. est ce que bu ñu 2 avril jàllee président Macky Sall mooy wëy di nekk njiitum réew mi wala assemblée nationale Mamadou Mame Diop moom moo koy remplacer. waa léegi foofu article 36 day dugg. Hmm. parce que article 36 dañuy wax alinéa bi rek. mais alinéa 2 bi rek mais dafa am alinéa 1. Mm. alinéa 1 bi dafa nii le président nouvellement élu entre en fonction à l'expiration du mandat de son prédécesseur à l'expiration du mandat de son prédécesseur mm-hmm. donc léegi loolu mooy et installé et installé à l'expiration du mandat de son prédécesseur loolu ça veut dire que élection war na am avant la fin du mandat de son prédécesseur léegi nag bu fekkee ni élection jot na am ci lañu jël alinéa 2 ni le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur loolu mooy sens bi mais boo demee ci article 103 le mandat est de cinq ans mm-hmm. la durée du mandat ne peut faire l'objet d'aucune modification mooy 2 avril bi mënoo ko weesu léegi nag bu fekkee ni am na premier tour résultat génn am ku ñu fal mën nga toog parce que même premier tour bi la 24. Mm-hmm. délai de recours yeeg yooyu mën na jéggi le 2. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. Euh, résultat pro euh, définitif yi génn mën na génn sax euh, premier ou 2 avril. nga nga prêter serment peut-être ay boor le 6 le 7 wala le 10 et cetera bu boobaa jour yooyu prévoir nañ ko ci 36 2 loolu mooy 36 2 mais du pour dem ba ay 1 an ki 2 ans ki mois de juin ki mois de décembre. c'est pas pour ça kon kon bu tour amee Macky Sall mën na wéy. day toog continuer nekk président de la république le temps que ñuy installer le nouveau gouvernement wala le, le, le nouveau président. day day day toog mais dégg na euh, conseil constitutionnel pour marquer le coup. Mhm. da ko bëgg a dindi te loolu du yoon. 36 2 non 36 parce que dafa war a def passation de service. Mhm. ak le nouveau président élu. Mhm. on est cas on n'est pas en cas de on pas dans un cas de vacance du pouvoir. on n'est pas dans un cas d'incapacité on n'est pas dans un cas de décès on n'est pas dans un cas de démission. <laughs> moom nee na na sax de la deux dem. waaw mais lan la ragal est-ce euh, passation de service bu fekkente ni Diomaye Faye nekk na président supposons. Mhm. muy def ak moom passation de service jugee kaso dem palais. loolu du kersa rek de parce que Diomaye du du jóge kaso dem palais Diomaye léegi mu génn. parce que mhm. dañu voté loi d'amnistie. j'espère que coupure signal bi c'est pour que ça se ça ne fasse pas tiitange la xam nga passation de service boo takkalee raay Diomaye mhm. ci saa si il chef suprême des armées mooy commandeur général Moussa Fall de mhm. mooy commandeur général Meïssa Sélé de mhm. mooy chef am mooy chefu commissaire Sankaré de ak ñoom Bokar yàgg ñoom ñëpp moo leen di ilif ci saa si ci saa si mën na lii monsieur le président Merci de bien vouloir vous mettre à la disposition du Sénégal à toutes fins utiles. wut brigade bu ko escorté Mermoz ñu fatt bunt bay jaar ci camp ba ñu ko toogal xaar mettez-vous à la disposition de de bàyyi ko ci jàmm après ñu xool nag càmbar ba noppi moom <laughs> wartu demee noonu dafa war a def déclaration de patrimoine président loolu constitution bi wax buy génn mm-hmm. dafa war a def déclaration de patrimoine comme ni mu defee woon déclara déclaration de patrimoine bi muy dugg te ba muy dugg sax déclaration de patrimoine boobu dafa am problème hmm. moo tax mu dissoudre crédit ah moom dafa ñëw ni indi na huit milliards ci liquide hmm. xaalis xobet xobet waxul ay ay immeuble ay tool ak yooyu hmm. xaalis huit milliards la indi te moom bàyyi na liggéey ci gouvernement bi depuis 2009 mu ñëw 2012 dese huit milliards. te def na campagne électorale aussi. moo tax ma ni dese huit milliards mu ni Abdoulaye Wade moo ko may Abdoulaye Wade ni ko waxoo dëgg waxewu ko sax noonu mais or maa tax may mm. waxee noonu kàddu Abdoulaye Wade yooyu def naa mu ngi raisonné ci bopp yi ba léegi. Mm-hmm. loolu rek problème la CREI CREI amul may moo tax mu dissoudre ko kon 2019 looloo tax mënul def déclaration de patrimoine parce que bañ ko falaatee balaa muy prêter def déclaration kon tey jii bu doon def passation de service ak Diomaye mm-hmm. non seulement day def déclaration de patrimoine mais mën nañu déglu tuuti ba ci kanam ba ñu xool dossier yi ñu bàyyil parce que dossiers yi dañu am ay do ñun ñun xoolal ñun ñu ngi ci ci plateau yi di wax mais nekkuñu di wax rek de. Mm-hmm. nga ci dañu xam li mm-hmm. xew ci dëkk bi ñun dañu xam état dañu xamante suñu biir fii kenn mënu fi réer ñu ni neen la. ay nit ñu bëgg seen réew ñu nga présidence. ñu nga gendarmerie ñu nga renseignements généraux mhm. ñu nga ministère des finance ñu ngi ministère de l'énergie ñu ngi ci plateforme yi ñu ngi ci mine d'or yi ñu ngi partout sénégal yi bëgg seen réew mhm. di souffrir ci ni seen réew di jàddee yoon ñu ngi fépp te ñoo ñëpp dañuy collaborer ñoo ku yu ñu gisee porte-voix dañ koy dooleel ci suuf dañ koy jox ci suuf ñun dañu xam fu mu dëngee dañu xam fa mu manqué kon tey ji ñoom moom li mu bëgg mooy éviter la passation de service kon tey jii bu ñu tegee am Amadou Mame jóg mais day yomb Macky passe def passation de service ak Amadou maam Diop kooku boobu amul problème di mhm. léegi keneen bu ñëwee kooku mooy def ak am Amadou maam jóg mooy nekk fusible bi daal mhm. mooy nekk tempon bi léegi bu ko defee moom mu dem yoon loolu laa d'accord parce que le président rest en fonction jusqu'à l'installation de son successeur bu fekkee ni élection am na lay dugg muy article 36 alinéa 2 boobu ñuy lam-lamee donc kon moom bu bu quittee pouvoir bi le 2 le 2 avril dafa démissionner non du démissionner bu du quitter le pouvoir le 2 le 2 bu fekkee deuxième tour am na même bu deuxième tour amul résultat définitif bu premier tour yi mën na bañ a génn le 2 il faut mu xaar parce que day am délai de recours da koy xaar parce que mënuñu am vide nekkuñu ci crise boo xam ni dañuy jëli benn benn benn benn président de l'Assemblée nationale wala armée pour mu ñëw jël pouvoir bi. mais crise boobu crise boobu ñu wax gis naa France 24 euh, titre nii le Sénégal est dans un crise politique. politique oui politique mais crise institutionnelle man laay wax crise politique moom mooy ñàkk déggoo politique rek crise politique APR ci biir ñu ngi dóoral tojante bopp opposition bi ci biir seen biir ñu ngi tojante bopp. donc crise politique am na mais institutionnelle amul. amul mais assemblée nationale démb la doon liggéey. di dem mm-hmm. voté projet de loi. Mm-hmm. Euh, euh, non conseil constitutionnel démb la def délibération. Mm-hmm. Macky Sall démb la tenir conseil de ministres. jël kon tout fonctionne. ñu ngay conseil de ministre ñu ngay ñu ngay dem assemblée di voté ay loi conseil constitutionnel la ngi dé délibéré justice baa ngi jugé tout le temps tey euh, Ousmane Sarr ñu ngi ko doon jugé ak yeneen booy. tout fonctionne. y' a pas de crise institutionnelle mais crise politique oui parce que APR y' a un cas Amadou Ba et y' a Aliou bu dem Boun Abdallah bu dem Mame Boye bu dem gis nga discours Mame Boye Diaw. c' est un mm-hmm. discours d'opposant maintenant mm-hmm. donc euh, et cetera et cetera foofu c' est c' est une crise gis nga entre taxawu ak Pastef. Mm-hmm. c' est une crise yooyu am na mais les.